li ñu yor bariwut réew mu ndóol bo sa première objectif xam mooy lan avant ngay uti dara mooy li ma yor nan laa koy sàmmee ba kenn du ko luubal ku ko luubal yoon dal ci kaw dal ci kaw ki ko luubal mais li ñu gis mooy vingt rapport euh, de l'OFNAC corruption teg ci tegu ci table procureur pendant ce temps moom benn objectif la am depuis ba mu fi tegee mooy nu may def ba jàpp Ousmane Sonko. Pape Sané euh, lan moo lan lan moo tax les rapport là ñuy tudd yëpp souvent day rester sans suite. waaw mais Moustapha man déjà dama yaakaar ne que ñun Sénégal dañu dal xel quoi ah, ñu mel ni man boog dañu dal xel. dañoo dañoo dal xel quoi. <laughs> Euh, maam Birame mu ngi koy fàttali léegi 2012 euh, président Macky Sall bi ñu ko falee fii la ñëw taxaw ne moom la mu yoree ci patrimoine ak alal yëpp. Hmm. bu ñu ko xaymaa toll na ci 8 milliards. maam Birame expliqué na un peu ñaata weer la def ci état ci gouvernement 94 waaw bañ ko laaje mu ne dañ ko koo may ka ko may heureusement ka mu ka mu ne moo ko ko may mu ngi dund mooy président Ablaye Wade nee na mosuma ko ko may parce que mayu ma ko sa ñam sama njaboot mayu ma ko sama mbokk hmm. donc nit kooku bu taxawee jël créer dix mille corps de contrôle ne pour lutter contre la corruption du mujj fenn du mujj fen dans la mesure où dès le départ maam Birame précisé waxaat na ko fi lii nga xam ne mooy mbirum CREI yi ñoom Karim Wade vingt cinq yooyu mu tuddoon. Mhm. ba tey jii lañ fi waxoon yépp je crois que ci ay quatre mille milliards lañ ñu commencé woon nañ. Mhm. ba tey jii waxuñu sénégalais yi lii yëg lii moo ci moom lañ ci récupérer wala lii yëg lii nañ ci récupérer may fàttali ko ni ko Moussa ci wàllu créé boobu créé mhm. boobu. lii di liquidation AHS AHS bii. Mhm. liquidation ñu ngi fay liggéeyee ñu ngi fay ba tey ji kenn mënul taxaw ne la dërëm mu AHS fii la dugg ci gafa nguuru Sénégal kenn mënu la ko wax et pendant des années ñu ngi woon ci liquidation bi benn ñaar. la nga xam ne man dama ko dama ko xam te je je suis à l'aise pour parler bu ñu jëlee li nga xam ne moo doon foncier bi. Mhm. foncier li ci mel ni lii nga xam ne kii di tey bu njaay moo ko moomoon. Mhm. société immobilière bi doon gérer son patrimoine immobilier dañu xëy la fa nekkoon comme fonds yépp mhm. ñu jël ko am fu ñu ko dugal. ba tey jii may wax ak yow tey mu njaay mu ngi déglu gisul. dërëm boobu te dërëm boobu duggul ci gafa Sénégal muy benn ñaar Moussa Ba mhm. tey ji on ñu ngi nañu wax ci où est la pointe de Sangomar ñu ñi fi toog jëpp avion présidentiel ah, c'est vrai qu'on en parle plus ne mel dëng réer réer na réer <laughs> on en parle plus kenn mënu wax pointe de sangumar fan la nekk ci réew mu mel ni Sénégal ñu ne c'est une république et que toutes les institutions qui marchent ana Pointe de Sangomar kenn mënu wax fii la nekk loolu mooy ci wàllu bonne gouvernance mais Moussa Ba bu ñu ñëwee tey ci wàllu corruption je crois que c'est devenu endémique de telle sort que je crois que léegi ce n'est plus une ce n'est plus une exception xam nga bu njëkk ba exceptionnellement nga ko doon hmm. léegi c'est devenu une règle. damay joxe benn exemple bu terre à bu am démb un directeur général d'une société nationale ko hmm. dem Abéné Kafountine pour dajale pour rek des hectares de terre. Mmh. une vidéo ou devant le préfet. devant le sous-préfet devant le commandant brigade ñuy séddale ay enveloppe nit ñi pour ñu accepter céder des terres quand des pratiques comme ça se font. préfet taxaw di xool sous-préfet taxaw di xool commandant de brigade taxaw di xool c'est pour répondre à ta question loolu mooy tax genre rapport yi du mus a am finalité parce que Ousseynou lii laa di. président Macky Sall ba mu fi toogee ba tey jii quel est le seul membre de l'APR ba nga xam ne jël nañ ko dugal ko ci yoon ne ko uyu yoon kenn. suñ defee médiation nag. kenn rek non man médiation fan kenn kenn laa fi gis c'est de l'ancien directeur des transports terrestres te ci biir kaso nañ ko jëlee nommé ko. ah mooy ki ki nekkoon Louga. waaw Seck waaw te ci biir kaso nañ ko fekk jëlee ko fa nommé ko. c'est la seule personne bu ñu toppoon maa ngi fàttaliku balaa ñoo dem élection locale yi ni nii nii ñu génn fii janvier 2022 yaay 87 maires yi nga xam ne qui étaient poursuivis dans des affaires de détournement dans des affaires foncières et tout ba tey ji amu ci benn suite boo demee soit ce sont les procureurs ñoo ci teg seen tànk soit ce sont les juges ñoo ci teg seen tànk. et si le procureur trouve qu'il matière à poursuivre comme ni ko Mané waxee sànq Sané. ah waaw xam nga d'accord le procureur n'a pas n'a pas. matière à poursuivre. ah bon. xool na xool na rapport yi gis ne bon waa l'OFNAC a écrit euh, c'est peut-être beaucoup de euh, euh, littérature mais bon jëru topp genn un maire qui charcute 30 hectares ou 4 40 hectares de terre sans autorisation de de de, de di les cos di reconnaître ne que effectivement musul am euh, autorisation de lotissement moom ci boppam mu reconnaître devant le tribunal ne musul am autorisation de lotissement kon bu ko toppee bu ñu ko toppul mooy que kon y a quelque chose qui c'est-à-dire en fait Moussa Ba mhm. les rapports moi je dis que ce n'est même pas la peine qu'on compte là-dessus tey mhm. tant que le président est dans cette logique de partisanerie mooy maanaam samay nit xam nga dama ne dès le départ mhm. man le jour bi ma toogee dégg président naan samay nit sama frère man boobu laa ne say on est plus en république parce que quand on est dans une république où président de la république taxaw naan man sama rakk dañ ko laal wala samay nit dañ leen laal sa à le problème commence à être très sérieux rapport yi nag moi je dis que au-delà du président de la république gis nga magistrat yi nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen nommé c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de faire leur travail pour ça ils que la constitution prévoit et régule seen fonction liggéey mbay na leen pouvoir assez de pouvoir pour lu ñu bëgg a def ñu def ko mais dama na la. Hmm. ci li nga xam ne moom moo amal solo askan bi doo leen ci dégg ñu auto saisiru mais ci li nga xam ne naa la wax ay yu ñàkk fayda yooyu. Mhm. boobu nga leen di dégg ñu ci autosaisir. Pape Makhtar est-ce que corruption dina jeex ci Sénégal. <laughs> corruption corruption du jeex ci Sénégal du jeex ci àdduna loolu moom. est-ce que mën naa wàññi affaire parce que. il y a, a des pays du xam ne danañ cité en référence. bien sûr euh, du ma ne corruption amu fa mais euh, c'est des références quand même. Mhm. Sénégal war nañu am prétention wu yegg foofu. absolument mën nañu wala ñu sax gën a améliorer. et loolu loolu yaakaar naa ni buñ ko defee rek dinañ gis njeexantal ci euh, suñu façon que boo xoolee tey problème yu ñuy am yu bëri corruption moo ko waral te corruption mën nañ ci boole sax surfacturation ak commission yi nga xamante dañ koy gis ci yenn dossiers yi mhm. euh, stade bu waroon jar milliards par exemple ñu facturer ko milliards boo waree def pont 2 milliards nga ni euh, milliards bu ko defee mhm. loolu aussi voilà euh, moo tax ba tey hôpital yi duñu duñu du ñu jàkk du am matériel classe yi du ñu baax ak yeneen ak yeneen te loolu yaakaar naa ni état boo xamante ni dafa bëgg taxaw ci njub état boobu dafay dafay taxaw ci loolu mais boo comprendre encore une fois contexte bi Macky Sall tegee OFNAC Euh, nekkul woon pour euh, bonne gouvernance ak yooy dafa falu te boo faloo da ngay soxla ay ay euh, lu mu tudd euh, indices yi ñëw def ay rapport te pour ñu def ay rapport dañuy soxla ay mécanisme mmh. par exemple tey euh, réew bu am benn benn benn benn benn instrument boo xamante wala benn institution boo xamante day xeex corruption mmh. réew boobu bu ñu koy ci indice de corruption wala indice de lutte contre la corruption day am point yu baax parce que dañuy naan mécanisme yi naan dañuy naan def na effort que année bi amul woon lii donc année bi am na lii mmh. te bu ñu defee loolu dafay propice ci li nga xamante ni moom mooy investissement investisseur dañuy ñëw parce dañuy jàpp que ni réew bi de wax dëgg yàlla war nañu fa mën a dugal seen xaalis donc loolu kese taxoon mu teg OFNAC mais nekkul woon dans une volonté euh, voilà de de transparence parce que bu ñu nekkoon ci transparence yaakaar naa li ñuy wax ni ba si ñoom waa APR dañ lay naan euh, sànq ba hypothèse lay teg dañ lay naan euh, peut-être que lii moo am lii moo am lii moo am bu nekkee nag réew boo xamante ne transparence daf fay dox code de transparence bi ñu voté 2024 aussi hmm. ko jox ci indice de perception te aussi pourquoi perception buñ ko buñ ko def dualité ak la réalité ah parce que du ay mbir yu concrète yu ñuy jàpp perception que si nga ci mën hmm. corruption du loo xam da nga koy jàpp. perception kese nga ci mën a am mhm. sécurité yeneen ak yeneen yooyu yëpp perception kese nga ci mën a am du mhm. dualité entre perception ak réalité wan ko way perception la rek euh, c'est li ñu mhm. nekk di dund moom nañu gis ni que corruption daf ci nekk di si jouer benn rôle boo xamante ne bu am bu am solo te baaxu ci société bi donc je pense que ni vraiment euh, état du Sénégal euh, dafa waroon nekk ci logique gu état bu normal bu république bu normal logique bi lan la mooy que ñun citoyen ñoo war a xam lépp ci état du Sénégal te état du Sénégal du xam dara su ñun. loolu moo mooy norme. parce que ñun dañu am lu ñu tuddee vie privée mais état du Sénégal amul vie privée. mais on nous surveille mooy lu ma la wax nag loolooy loolooy loolu tey jii mooy mooy mooy mooy problème bi tey état du Sénégal am na toutes les informations sur Mansour Diop euh, mm. Moustapha Moustapha Diop. te Moustapha Diop amul benn information ci état du Sénégal contrat yu ñu signé yow doo xam lan moo si nekk xam naa ci teer nañ jëm. kenn xamul contrat la moo ci nekk noonu lañuy def aussi ci yenn ak yeneen ak alors que réew bu réew boo xamante ne normal lay doxee mais contrat yi ak budget bi sax ci exécution tey jii nii fi ma toog waroon naa mën a xam budget bi nga xamante ne 2023 la ñaata nañ ci jot a exécuté ministre voilà ministère bu nekk war a dugg xool ñaata ak ñaata a exécuté absolument mooy c'est-à-dire gis euh, gis nga euh, tey euh, yaakaar naa bu ñu nekkoon ci loolu ñëpp dinañ gis que ni corruption dinañ si dinañ ci gaaw jóge mais tey indice moo moo moo moo moo Ibrahima ma daaneel foofu li ñuy wax aussi Euh, souvent aussi presse bi dafay nekk dafay nekk coupable ah moo Ibrahima amul fu mu waxee ni euh, lu mu tudd euh, ci wàllum démocratie gouvernance Sénégal dafa avancé ah. ñoom dañuy jël ay point par exemple de manière générale Sénégal def na ay bons en avant mais ñoom ci wàllum gouvernance ak lii dañuy Sénégal ci réew yi nga xamante ni incertitude à surveiller bokk. Ah parce que ba tey président Macky Sall dafa nekk ci benn dafa nekk di dafa nekk co-dubitatif waxul ni dafay def troisième candidature te ci moo Ibrahima boobu. Cap Vert bi nga xamante ne 1975 la la la la indépendant bokk na si ñu nga xamante dañu leen citer en exemple. donc ñoom du ñu wax loolu lu leen intéressé mooy que way Sénégal def na ay bon def na ay lii d' accord si manière ñoom ci seen classement mais boo xoolee par secteur ci gouvernance bokk na Sénégal ci réew yoo xam ne dañu leen war a surveiller parce que ñu ngi jël exemple Mali ak Burkina Faso parce que nee démocratie nekkul da nga ko war di préserver te li koy préserver état war nañ si mën a taxaw parce que Mali. Mhm. Euh, cinq ans ci ginnaaw démocratie la woon. laata ñuy daaneel pouvoir bi. Burkina Faso des élections démocratiques absolument donc donc Sénégal dafa bokk ci pays yi nga xam ne dafa am incertitude te li ko waral leen kese la mooy président Macky Sall bi nga xamante ne wu néew non. asmaana président Macky Sall néew luy néew na bokk na ci li ñu teg incertitude. non mais ah, c'est encore des raccourcis hein <laughs> fondamentalement.